Moussoukro jour de match jour de Sénégal Côte d'Ivoire yegsi nañ tey ci bés bi nga xamante ne moom mooy huitième de finale bu gaynde ak Sénégal fas yéene jongante tey ji ak réew mu Côte d'Ivoire nekk réew mi nga xam ne nii moom mooy dalal bile compétition ñu ngi koy wax jongante la boo xamante ne nii jongante bu am solo la ci bile ko Coupe d'Afrique des Nations gaynde yu Sénégal tey di janoo ak équipe bu Côte d'Ivoire boo xam ne génn na ci meilleur troisième yi maanaam ñetti poñ la am toogoon na ba noppi dañu ko mujjee rek repêché loxo bu ñëw Sénégal suur bi am na toll ci juróom-ñeenti poñ dugal juróom-ñetti ci ay benn cote la daal di kese tey mu nekk loo xam ne nag jàll na ci seen ginnaaw démb bokk na ci li nga xamante ne ni entraîneur bi daal di Cissé mu ngi koy waxtaanee tournoi bu passé la benn nag bu bees moom mooy nekk di tàmbali tey ji ci kàddoom tamit ba léegi rek ci bile conférence de presse la mu doon xam ne moom mooy Côte d'Ivoire am na loo xamante ni tey ji jot nañu ko yoral mu di euh, trophée ba ñu ñëwoon jël ci tey ci réew Sénégal ci atum 1992 jàppe na ko tey ji bor ba jàpp rek ni ay gayndeem daañu def seen kéem kattan ngir nag jël ndam li euh, yóbbu ci kaw Sénégal waaye seen tournoi bokk na ci tey enjeu bi nga xamante ni ñu ngi koy waxtaane muy ab place ci quart de finale Côte d'Ivoire tey opération réconciliation la bëgg a def maanaam wane ni li ko daloon ci premier tour bi njuumte cote la woon booral na nag tey ji am muy loo xam ne dafay gën a méttil bi la jongante kon mi ngoog loolee lañ fi mën a xamle laata rek ñoo wutali fi nga xam mooy stade Charles Konan Banny ah, fi ñu nekk nii moom mooy nag hôtel Molomé nekk tey ji ah, hôtel bi nga xamante ne ni moom moo dalal taskatu xibaar yi nga xam ne ah, ñu ngi ci waajtaay bu baax a baax kon match bi ñu ngi ko jàpp bu juróom-ñetti waxtu ci ngoon jote diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire lay nekk ñu yaakaar rek ni ci cappaandaw li Sénégal dina jàll am dam mën na ko wéyal li nga xamante ne ni moom mooy sa Coupe d'Afrique des Nations kon rendez-vous donc ci kanam entre le Sénégal et la